loolu lan lañ ma ciy xelal te ñu jàng ci asaar ne yow ma xiyaam nit dina dikk wéet ak yàlla yàlla sunu borom ne ko yow de yaay sama jaam diw nga ne waaw mu ne yaa def ñaawteef bi sàngam nga ne waaw ak nàngam ak nàngam nga ne waaw mu ne waaye dama laa suturaaloon ci àddina de ba kenn yëgu ko su dul màgg yow nga ne waaw mu ne dama la suturaale woon suturaale naa la noonu fii ci bis bi ñuy àtte nga ñëw ci samay kon nag nit su ko yàlla suturaalee warute wuñ ñi wala muy xaaw yi sutura soosu kon nee na kuy wut ku torox rek na nga seet kuy xaaw sutura boppam nee na nit kiy doyadal boppam mooy kiy jiital aw làmmiñam jàpp ne làmmiñ bi daal moom ci la lépp nekk te suñu mag ñi dañoo gëmoon yii muy dañ daan wax ne nit ku nekk ñettam war naa yées ñettam dañ daan wax ne nit ku nekk mbubbam war naa yées darajaam waaye nit ku nekk it eh, ay waxam war naa yées jëfam nit ku nekk it am xelam war naa yées diineem bu diine xasee wax léegi foofu nii laa ko gisee amutu ci def walla bàyyi rek la war a doon kon waxuñ ne wax baaxul waaye dafa wax ne ki koy jiital nga xam ne wax rek mooy la nekk ci la muy def ñetteel bi mu waxaat ne ak nay maanaam nit ku nay safaanu tabe nee na aw rafle la ci doomu aadama maanaam nit ku jaar ci mbedd mi solul dara nee na melokaan ba mu amee nee na nit ki nay it melokaan boobu lañ koy jox suñ ko doon jox wenn melokaan bu méngoo ak moom nee na ragal muy buqat nit koo xam ne du jël benn responsabilité lu ñëw mu waaf nee na loolu ak yées la ci doomu aadama ak dellu ginnaawam la ci doomu aadama te fii kat dañu fee indi ngir ñu wuutu suñu borom nekkal ko fi nekkin woo xam ne lépp lu mu fi bëggoon dinañ ko ko fi defal waaye lu mu fi bañoon it dinañ ko ko fi fegal nee na ak ndóol muy ñàkk dafay damm làmmiñu boroomu xel ca la mu war a wax ndax ay wax dañuy wax ne soo ca leblee wala nga fay ca bor rek dëgg dafay daal bi tuxu waaye lépp dafay ñibbisi rek ci am fulla fexe ba sa dund nga yor ko ci sa loxo ginnaaw bu yàlla wéyee mu doon loo xam ne looy fàggu la doon loo xam ne doo ko gàll ci kenn wala buy gàll ci kenn it ab liggéey lay doon bu ngeen séq muy jariñu ngay jariñu doonaa doonaa waaye tàllal la ko rek ak ñàkk ne ab coono loolu la cay juddoo jabu ko aleykum salaam ki néew alal fa mu dëkk sax ab doxandéem la doon kon alal doonul lu ñuy jiital waaye nit ki war na cee fàggu boppam ba fa lu mu bëgg a def mu mën koo def ci sago bu ñu nafaree ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba ba muy dajale ay alal ngir defar ci ay projet ak lu mu mën a taxawoo société bi dane borom kër bu nekk na génneel boppam nangam